sax na yaa xam euh, kasumaay kasumaay ak ñi nga xam ne ñoo toog yëpp ci plateau Tandarma di leen jaajëfal di leen dalal fii ci Casamance ñu jógee Ziguinchor nag daal di dem. fi nga xam mo moom di Jembereng Jembereng nak boo jógee Ziguinchor da ngay dem ba Cap Skirring 70 km la maanaam juróom-ñaar fukki km nga jógee Cap Skirring daal eh, Jembereng def fukki km doog a yegg fi nga xam ne mooy Jembereng Jembereng nak am particularité boo xam ne dafa am ten teen boo xam ne ci weeru koor lañ ko fa defoon ki ko fa defoon di El Hadj Oumar Tall rabi yàlla taala anhu moom nag mu ñëw fa def fa ñeent fukki bis ñeent fukki guddi yoo xam ni dafa toog di def ay ñaan bi mu ñëwee fa jafe-jafe ndox am fa mu dem nak ba defal leen teen boobu nga xam nag teen mu la boo xam ne boo ko gisee bokkul ak teen yi nga xam moom la ñuy nemmeeku ci Ndakaaru ak gox yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi mais teen la boo xam bu am particularité bu rëy boo xam ne ci formam la ak euh, goût bi nga xam ne daal moo am ci teen boobu ak ni nga xam ne daal mooy couleur ndox mi nga xam ne moo fa nekk na ndax ma la ndox la moo xam ni dafay bal di génn ci suuf di ñëw kenn xamul fu ndox mi di jóge ci kon tey jii loolu la ñuy dem wan leen ci teen boobu nga xam ne El Hadj Omar Tall rabi talaanu moo ko defal waa Jembereng xanaa rek ñu dem wan leen élément bi daal di ñëwaat ñu daal fay dajeeg ak ay ndaw yoo xam ne daal ñu ngi doon ñëw di wut si ndox ci teen bi nga xam ne daal taarixam yàgg na lool. El Hadj Omar bu muy ñëw Jemberin euh, si jamono yi sunu maamaati maam la boobu Jemberin y avait pas de musulman jullit amul ñëpp ay animiste la ñoon mais bi mu ñëwee dëgg naa duggul si dëkk bi. Dugul si biir dëkk bi si bi si ah maanaam si si peg bi la la la kii la toog lu indi nag histoire tenbi, bi dafa amoon bu njëkk bi problème mu ndox weeru koor la tombé El Hadj Omar def na fi 40 jours et quarante nuits biir Jembereñ bii nii si la ñaan sunu borom julli ñaari rakka ñaan sunu borom le lendemain gars yi dañuy ñëw fekk teen bi yëpp fees ndox ndox bi noonu la ñëwee tey kenn mënu laa wax ne ndox bi source sangam la jóge wala fee la jóge wala fee la jóge dañoo xëy suba rek ñëw fekk ndox depuis ce jour gars dañuy ñëw di root faj seen soxla. teen bi ñu ngi nemmeeku bu baax ni wute naag ak teen yi nga xam moom lañ xam formam bi wute na lool waaye tamit caf ndox mi ak li nga xam ne daal moo di couleur am. teen bi particularité am mooy teen yi en général da ngay gis teen yi dafay am ay ay maanaam ay bûche mais bi amu ko bi ay xeer rek la am ndox bi musul changer goût musul changer couleur. ndox bi nu mu mës a mel rek même boo ñëwoon dans vingt ans ni ko noonu nga koy fekkaat waaw maanaam euh, Alaaji Omar euh, maanaam si si gàttal daal euh, wàlliw la woon yàlla mayoon na ko trop moom moo xam nag lu tax mu def fi quarante jours et quarante nuits. bis bu nekk nit ñu bëri nag ñoo fay ñëw di fa rëkkëri yi waaye tamit di amal ay ñaan. waa ñu daan nemmeeku ab jàkka daan nañ ko fay tabax ci wetu teen bi. nit yi fu ne ci àdduna bi dañu fay jógee di ñëw d'ailleurs euh, teen bi mënoo fi ñëw ba nga jóge fi te nit fekku la fi mënoo ñëw fii nii ñun ñëw nañu am nañu déjà ay ñu fi fekk. noonu ten bi noonu la mel munoo ñëw fii yow kese ba nga ñibbi te da kenn du la fi fekk nit ñi fu ne si àdduna bi la ñuy jóge ñëw barkeelu waaw torop torop yéeme bi maanaam euh, tey boo amoon aajo nga ñëw spécialement ne ah dégg naa ne teenu El Hadj Omar de boo fa demee sàkku maanaam saku ñaan waaw sa aajo dina faju sa at bu jot ab ziar lañ fa daal di organiser nag kii def li mooy famille omarienne ngir nag wéyal li nga xam ne mooy œuvre El Hadj Omar ci at bi fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom ci weeru bi bii lañ daal di jàpp bu ko affaire ñu daal amal événement boobu ak soxna yaa xam gis ngeen li nga xam ne moo di lépp lu am muy taarix muy forme muy li nga xam ni mooy particularité bi nga xam ne moom la teen boobu nekk ci Jembereng am ay nit nag ñu bari comme ni ñu ko waxee ci élément bi ñoo fay ñëw di jóge fépp nekk di ñëw di fa def seen di def ay ñaan ngir faj seeni soxla di def lu nekk fan fan yi sax ñu ngi jàpp ni comme ni ma ko jeexale ci papier bi li nga xam ne mooy ziar boo xam ne ñu ngi ko fay def at bu jot te ren jii ñu jàpp ko fukki fan ak ñeent ak fukki fan juróom ci weeru mai bi nga xam ne ci lañ koy amal ak waa famille omarienne di fa ñëw nag def fa ñaari fan yoo xam ne daal dañuy def ay ñaan gën a màggal bis euh, li nga xam ne moo di teen boobu def ay ziar ndax li fa alaaj Omar def nekk na lu xam ne lu rëy la kon lii lañ leen indiloon tey ci euh, tàndarma ci région yi bi région bu Ziguinchor ci leen jox dox daje ci beneen week-end ci beneen émission tàndarma jaa ngeen jëf